lan moo war a taal bi ak ban xalaat nga am ak affaire bi fan la jugee ba nga andi ko fii. waaw ñu nuyu ñëpp ku nekk seen tur seen sant bi la nuyu yow sama xarit di nuyu Kanawa yi waaw di wax ni affaire bi euh, fi mu commencé yàgg na parce que suñu biir kër la commencé fa lañ nekkoon doon ko doon bu ñu xëyee gars yi di ko ndékkee ba sama maam moo daan def loolu bu ñu xëyee daan ko ndékkee gratuit ñu defar café lépp. ñu dem ba mu yàgg gars yi tamit doon ma wax ni ay euh, affaire yi mën nga ko def di ko jaay day dox donc boobu woon ko affaire yooyu noonu quoi mais un jour dama xëyoon liggéey ba wàcc ma xool ak koñ bi ni muy populé terrain bi nekk suñu koñ ak lépp ci la ñuy waxtaanee ma xam ni waaw fii su ma fi créé lii mën na nekk un business après nag si laa ko commencé nag di ba léegi macha allah. kër la ko commencé ba affaire bi génn si kër waaw mais da ak lii ak jeunes yi actuellement nii jeunes yi ñu bëree si dëkk ah. ñii di jël yoonu gaal gi ñii di jël beneen yoon ñii di def naka su dul noonu. donc nga bàyyi loolu yëpp ne jaay moo la soxal jaay wàllu jaay ton ak jaay nu mu méttee ak Sénégal lu ñu demee nii. est mu lay apporter quelque chose. waaw mi ngi may apporter quelque chose parce que àdduna bon nit boo xamee ni sa diggante torox liggéey moo ci dox kon di ko fonk bu baax bu ñu xeeb dara parce que bon comme ni ko gars yi di waxee ni di ko tooñantee. di ma xoolee ba créé xool kon bi ñu bëri gëmuñu ko woon quoi mais pour ñu gëm ko foog ñëw ba gis ma ma xool business bi si liggéey amu ci complexe lépp di ñëw affaire dem ba masàllaa egg fu sori partout egg fu sori ba tey damay dox sax fenn ñu naan ma a Touba Taraton affaire yooyu noonu quoi ma xam ne nag sant yàlla parce que yàlla suñu borom moo ko barkeelal si boobu si wax ji yaa ngi naan TTT TTT da ngaa tëb tëb wax ko wala soit daan si koo xamante ne euh, premier mot bi daan si koo ko déggee ou bien yaa ko créé sa propre idée nga génne ko naan TTT TTT maanaam fa la jógee exact waaw TTT fi mu jógee parce que dama doon waxtaan ak Malaw Pikine quoi sama xarit la maa ngi koy de passage bu baax la ku yaatu ku disponible ci ñu ko yàlla jagleel mu si liggéey ñu ngi ciy jaamu yàlla di si jàppale ñuy waxtaan ko mais maalo affaire nan la ko tuddee ma naan ay Touba ton ak affaire yooyu noonu maalo ne ma Touba Talla ton ma ne ko d'accord parce que man dama bëggoon à chaque instant moom Touba parce que taal bi suñu Touba la après nag mu ne ma Touba Talla ton rek ne ma TTT ma ne ko kon léegi TTT tur bi lool la léegi nag dox ba fu may dox léegi sama tur sax pour ma dégg ko problème la TTT laay dégg voilà TTT comme mu non noonu bay lepp lépp tuddee boppam TTT deful comme ñeneen ñi naan business nangam business nangam dafa gëm boppam hmm. voilà motax mo ma leen c'est jeune engagé déterminé hmm. moo tax mu bàyyi lépp tuddee boppam TTT TTT su nga xolé mi ngi nii Touba Talla Ton loolu la fait donc waaw te ñu ñëwaat si wàllum ton bi hmm. bon yaa ngi jaay ay ton euh, mayonnaise aussi ñebe affaire yooyu mais est-ce que ah. loolu yaa ngi si sentir sa bopp maanaam yaa ngi si gis bénéfice boo xamante ne bon dina di si am di si suturlu waaw ñu ngi sant yàlla bu baax nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant parce que li ñu ko tàmbalee sant yàlla te ngi siy sant suñu bopp te am si ay xamel te fu nekk la nit di jóge di fi ñëw wax dëgg yàlla ma si sant yàlla mu nekk barab boo xam ne boo xoolee gars yi fii ñu fi toogee ñëpp gars dañoo dem ba bu ñëpp ngoon bu jotee ñëpp dañ naan dañuy dem TTC Touba Taraton partout ay nit bu jóge fu nekk di fi ñëw kon ma si sant yàlla waxuma la dara mooy ku fi indi woon mer sax boo ñëwee fii yàlla dana dogal nga fàtte sa mer sama gars yi ay ñoom njool fi la ñu nekk ñoom Saliou Penda dafa dem Diourbel ñëpp junior Konaté dañu kaf la ñuy def fooree ambiance bi booy loolu lañ fi def foo bu am nekk ku amul it nekk parce que ñu yëfu Baay Faal la mais vraiment moom wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant yàlla quoi si fier moom vraiment waaw kon alhamdulilah comme que neen moom mu ngi si sant yàlla euh, xool si loo xamante ne moom lu ko si gën a yitteel maanaam dajale waa koñ bi gaay tax jàmm foo agré bo loolu nekk nañ dañ ñëw aussi lu rafet nit ki moom si demee bay boole ay nit rek maanaam si jotaay bu rafet rek kooku ñu ko gën a sant yàlla ndax si boobaa bu ñuy dàq lu bon andi lu baax waaw suñ ko suñu xoolee ni jeunes yi ñu taxaw sax ngoon daal nañ ko taxaw ñëpp xale yi ñëpp ñëpp ñu teew daal waaw ak naan Kaala Touba Tom ak KKK kon gars yi ñu ngi nii waaw dañ seen boo xam ne dafa déterminé waaw waaye lépp créé benn petit table am kon ñun ñoo ko war a gën a mun a jàppale ñu ñu dëkk si kon ñu ñu dëkk si alentour bi ak ñu munti nekk ñu ñëw jàppale ko mënoon naa créé leneen wala mënoon naa def beneen business def leneen daf si lu noonu wala lu bon mais dafa bàyyi loolu yëpp di liggéey jaamu yàlla loolu la xam kon donc ñun ñoo ko mun a jàppale ñun ñoo mun a lancé projet bu mu teg nii yàlla yokkal ko beneen beneen lu mu bëgg waaw kon gars yi noonu la ñu ko gën a jàppale ñu ñu nekk si commune bi ñu nekk si alentour bi business bi gën a dox affaire bi gën a jëm kanam suñu xoolee mais wàllum xam nga jënd ak jaay Sénégal moom dafa métti dëgg la mais ba yéen parfois doo gis yéen gars yi ñëw bi leb wala ñu mu loolu ñëw dem seen yoon quoi non munu ñàkk parce que tamit na noonu la tëddee bon yaakaar naa ni te li ñuy jaay sax wax dëgg yàlla ñun ñoo ko moom waaw ba sama papa nga xam ne saa yu may wax dama koy jël référence si moom vraiment boo ko sellalee rek mën naa am lu nekk waaw parce que xëy ñu tëb def ko dañu nekkoon ci leneen di ci góorgóorlu ba ñëpp xam ne suñu suy liggéey mais biñ ñëwee créé ko boobu léegi sant yàlla ñu ngi koy sellal wax dëgg yàlla gars yi moom fii li ma la wax rek ku am lekk ku amul lekk barke Seydina Mohamed wallaay wallaay parce que gars yi dañ siy jàpp ñooy ñëw de passage waa koñ bi yëpp di leen nuyu waa Pikine fii la dëkk. xar yu bees di daaku daan suñu quartier ñun ñëpp ñëpp parce yi ñëpp si jàpp foo wax mu ne jeune ñi jaay ton bëri na mais ñëpp si yàlla ñëw parce que nii nga musal na da nga généré da a tax Abdoulaye Gueye suñu jëwriñ ñu ngi noonu di soo egsi moom moo ñu teg si yoon daal moom moo ñu teg si yoon waa moom mooy jëwriñ bi loolu la demee daal vraiment daal wax dëgg yàlla gars yi moom fii moom ñëpp fi la ñu nekk kaf fooree lañ fi kenn amul fi lenn lu fi indi dañoo bëgg ku fi indi mer sax boo ñëwee mu jeex barke Serigne Saliou Mbacke ñu ngi ciy sant ñëpp di si gërëm ñëpp ak ñëpp ñu ciy jàpp tey fu ne lañ lay lu nekk lañ ciy def sama gars yi maa ngi ciy bëgg ñëpp Lamine Pogba sama xarit da ciy jàpp ñoo fanaatee ñoom ñëpp gars ñoom Bader Cheikh Tall gars fii ku ma lim damay juum. si barki Serigne Salim Mbacké. bilaay walaay mais daal bëgg nañ ci. vraiment bëgg nañ te ñoo ngi sant di ñaan yàlla mu yokku parce que nit tàmbali rek ngay def mais suñu borom moo yor doomu aadama. waaw te gaynde wér di ko tere xeex. lu leer lu leer. waaw ñu nekk si maanaam ñu ngi si ba tey ñu ngi si clinique events. nekk si émission gëm-gëm. te ñi lañ defee dañoo ñëw doxantu ba Pikine. ñu si Alaya bi ñu naan ko ay see daabu daal. ñu ko xamante ne benn jeune ñëw teg taagulam kon gars yi nañ ko gën a jàppale nañ ko gën a suuxal mais à part lii jaay jaay wàllum jaay bee jënd bi lan ak lan lan ngay defaat tamit ci fii maanaam soo xëyee loolu def après ngoon bi pour mun a ñëw fii waaw waaw mais man comme ni ma ko doon waxee rek yaakaar naa fii képp koo xam ne xam na ma fii wala daawaraan si football na ma xamee woon quoi mais xam nga mënoo topp g di g nii rek dem nañ ba si biir boo am benn affaire ba si dugg te mënoo topp bàyyi ñooñu say loxo kese parce que papa dani moon xëy toog daal moo baaxul mais suuf sax boo ko tooyoon jaay loolu fu dem dama koy wax mu ne dina am lu romb jënd comprendre nga man nag su ma damay jaay ay dàll Colobane laay nekk si business dàll yi foofu ñu bari fii booy maa leen jaay dàll su ma watee dama am toogaay dama ñëw nekk si lii lu ma yor dimbali sama sama ak ak rax vraiment suñu objectif franchement du ñu te fekk ay ñu doon moo tax ñu mën lii parce ay Baay Faal lañ suñu ko képp koo xam xam ne ci Baay Faal lañ juddoo fa lañ sosoo fa lañ yaroo fa lañ màggee jëriñ Abdoulaye boo ko toppee faaw nga oyof te doo jàppee dara muy dara waaw kon daal mënuñu changé dara du rëy tur du egg fenn ba ñëpp naan teeteetee Touba Taraton dama gis ñu changé wala ñu def dara kon daal ñoo ngi sant ñëpp vraiment waaw ñu noonu ne nekkul nekkul jaay kese maanaam jaay taabul jaay euh, taabul ton bi kese la am maanaam mhm. nee na day dem ci beneen business jaay ay dàll ay affaire yooyu noonu kon donc da leen moom bi leen di ni c'est un bon exemple day wax ni maanaam nit ki doo nekk si da ngay làmbaatu kenn xamul yàlla fan la koy tuddee kon mi ngi noonu comme dafa bàyyi su jaayee suba si ngoon gi tamit aussi day jaayaat lii kon mi ngi noonu kon voilà un jeune boo ne dafa déterminé dafa engagé kon gars yi pour yeneen gars yi kii c'est un exemple pour ñu ko xamul ndax dafa dafa bàyyi jour la woon yàlla def na football bi mënu see sori mu bàyyi loolu yëpp nekk si beneen business kon da lay wane ni rek nekkul suñu nekk fële la te aussi tamit ñu ngi lay ñaanal ak bépp barke beneen ba ñu def ci sa àdduna ñu soit jaay tool yi wala beneen affaire rek yàlla na ko yàlla sotti te mu nekk sa njur yaay aussi waaw waaw wax ñu loo tamit aussi jaar-jaaram nekk koo xamante ne bon baykatu waar la toogul teel loxoom di tàllal kenn lépp moom moo ko moo koy defal boppam taw te loolu la sax góor yàlla dëgg noonu la war a mel sax bu ñaan kenn dangaa war a xaaruñu kenn waaw góorgóorlu rek mi ngi noonu dégg ngeen nee na xaaruñu kenn si lenn si góorgóorlu rek waaw te ku ko pousse loxo tamit mu dem soo ko pousse loxo dina dem waaw dem kon aussi dañ ko gën a a dem mu avancé ndax la ñun ñëpp ndax nee na ku am lekk kon yéene na ñëpp kon ñun aussi tamit dañ ko yéene suñu xaalis mhm. ndax soo xoolee soo demee fast food Eh, ou bien eh, restaurant boobu mun di dem mhm. bërgër eh, boo ko jël duñ la level mhm. kon moom day lebalaate mhm. kon ci lañ gën a war a mën a gën a jàppale mërëmu Baye Fall waaw mërëmu Baye Fall ok yaakaar dañoo yaatu waaw waaw yàlla xol ma macha allah kon mi ngi noonu gars léegi dañ lay bàyyi nga wax sa dernier mot nga tàggatoo waaw gars yi mooy waaw sama tàggatoo mooy di nuyu waa koñ bi sama gars yi toog ñun ñëpp dañ siy jàpp parce que tamit mënoon naa fi nekk juddoo si koñ bi yaroo si koñ bi màggee si koñ bi bon am complexe def ko mais bi ma ko defee ñoom ñëpp dañoo ñew gisoo li mo fi nekkul sax barke sëñ baba sama gaay ñom junior gisoo leen ñep dañu am seen liggéey mais dañu leen bu mën ko parce que fi légui dafa dem ba jotaay la gaay ñep ma leen di sant waa bi di leen gërem di nuyu suñu wa kër di nuyu suñu wa famille di gërem pa bi ak mère bi di ñaan suñu borom yokk fi jamm yalla ñep am jamm waaw di yalla ñep am jamm suñu borom sutural ni parce que sutural si yalla rek mo fi nekk waaw nit lo nekk rek gor gor si benn complexe suñu borom dina si fekk waaw te nag nit ku am diin am jom bon bu xaar dara bul xeeb dara ndax suñu Tuubaa Mbàkke yàlla ñu yàlla defal jàmm ñun ñëpp yéen leen gërëm waa mm-hmm. sama gars yi kaanaa ngi vraiment jàpp na si quoi ndax te fii la ñëw rek waxtaan mu kontaan affaire bi impressionné ko mënu ma lënd dinaa fi def si interview kon ñu lay bëggee di bëggee ñëpp mm-hmm. wasalaam taala TTT ñu xamee ko si taala Touba Congo ñu ngi noonu. livré partout. fi mu toll nii ñu ne ñu laaj parce que dafa yoo xam dañ ko defar def suñu dafa jeex mais commande bi dafa xaw a yéex. mais dafa ñoom partout Dakar nit soxla dañ la jënd am nañ si ay càq-càq ñu ñu livré parce que nit ñi boo xoolee. jot bi amoon amatul parce que ñu bari dañuy jënd pow temps bi def ko seen frigo muy sedd buñ soxlaa génne tàngal bu jeexee ñu woowaatee livre mais képp kuñ ko jaay di nga ko wax say nit di nga boole ndax koom yi macha allah moo mucc ayib suñu borom nag moo ko barkeel. mais képp ko bëgg boo defee sa commande dinañ la jaay pot bi livré la ko ci kattanu yàlla ak baax euh, Carlton bi yamul fii rek. waaw yamul fii waaw waaw partout la. waaw kon boobu léegi dañ lay bàyyi képp ku bëgg pour alentour euh, léegi su boobaa nga wax numéro bi waaw en cas soxla waaw incha allah mu def ak dina la waaw dina la mën a contacter mun a nga mun kaa jox taw waaw waaw numéro bi 77 391 32 13 77 391 32 13 bu neex ak lekk bu sell bu rafet bu neex lépp lépp lépp loo mënti gis bépp anam ñu ngi noonu jox leen numéro bi ngeen euh, jëm leen kaa contacter dinañ leen ko livrer ba seen biir kër incha allahu rabbi waaw ñu leen koy defee saa su nekk yéen si biir clinique events ak talent bu ñuy découvrir tey ñu si taala peut être suba dinañ demaat si keneen ñu leen koy defee kon donc di jox dig daje si beneen émission gars yi let's